démb nag ki fi nekkoon procureur di Serigne Bassirou Gueye moom nag jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi ngir nag addu euh, kon jëmale ci euh, accusation yi nga xam ne kon Ousmane Sonko mu ngi koy def muy di tuumaal ci mbiram mi nekk ci diggam ak euh, Adji Sarr moom Serigne bassiru Gueye nag nee na daal loolu Sonko di wax naan moom dafa daal daf ko buggoon teg loxo ci lii di enquête préliminaire bi wante it dafa daal. dindi woon ci li nga xam ne moom mooy procès verbal bi yoo xam ne da doon seetal Ousmane Sonko wante it yokk ci ay mbir yoo xam ne kon day taqal Ousmane Sonko moom Serigne Bassirou Gueye daal jéem naa wane ne loolu lépp du dëgg. ba léegi ci mbiram dossier suite buti boobu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay avocat yu Ousmane Sonko ñoom nag def nañu appel ngir nag euh, ordonnance de renvoi bi nga xam ne kon. Euh, kii di doyen des juges def na ko pour ñu yóbbu mbir mi ca chambre criminelle pour loolu ñu dakkal ko ki nga xam ne nag moom mooy maître Cheikh Khoureyssi Ba ak ñooñam ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yi Ousmane Sonko kon ñoo amal euh, bile euh, appel kon ngir daal kon euh, boobule renvoi bu ordonnance magistrat instructeur bi ñu dakkal ko. xibaaru Afrique euh, dañ koy tàmbaleeg nag fële ca Afrique du Sud foofu nag xam ngeen ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe coupure courant yu bëri yu fay am loolu nag tax na ba ab euh, ferme boo xam ne daal ay euh, ginaar rek ñoom seen lañ fay yaree lu toll ci kon si quarante mille ci ay ginaar ñoom ñoo fa dee gannaaw bi nga xam ne nag ab coupure dafa amoon loolu waral ba système de ventilation. bu ferme ba am ab problème kon li nga xam ne nag ñoom ñooy ginaar yi kon ñu ne ca lañ fàtte ba dee lu toll ci euh, quarante mille ginaar kon foofule euh, ca Afrique du Sud te république démocratique du Congo nag lu toll ci 17 personnes ñoom ñoo fa am ay gaañu gaañu gannaaw bi nga xam ne nag ab bomb ñu ne moo fa explosé ci benn marché bu nekk ci Beni ñu ne daal benn xale boo xam ne moo fa ñëwoon ci benn euh, moulin muy walukaay fa la dem daal. bay fa ab saak ñu ne nag euh, ca ginnaaw ba mu wanee ginaaw rek daanaka ñetti simili lañ ca teg li nga xam ne moom mooy saak ba explosé kon euh, mu waral ba kon euh, lu toll ci fukki nit ak juróom-ñaar yooyu am ca ay gaañu gaañu foofale ca Beni ci république démocratique du Congo. xibaaru bitim réew lañ koy jeexale diggante Israël ak Palestine coow la tàmbale tina ba sax ñi nga xam ne ñoom ñooy kon waa. Israël dañoo amal bésub ajuma ji ay bombardement jëmale ko ci band de euh, Gaza euh, loolu nag euh, ñu ne ba mu amee ñu ne nag la ko waral dafa am daal ñu ne ay tiir yoo xam ne ñu ne dafa juge ca ay tiir yoo xam ne ko dañ ne waa Hamas ñoom ñoo ko amal ba tax ku ne ñoom ñu def yooyule bombardement lu ko jiitu nag démb ñi nga xam ne ñoom ñooy armée bu Israël amaloon nañ euh, ay opération kon foofule ca Gaza ba sax jotoon faa faat lu toll ci fukki nit ñu ne nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy branche armée bu Hamas bi euh, wax na ne riposte na loolu la ñu doon tey ci xibaaram seen teewlu dañ jox daje ëllëg yaa ngeen jëf.